ndax dafa xaw sutura Sénégal toroxal gor ñi toroxal néew di doole yi toroxal ñu malaat ñi toroxal handicapé yi Macky Sall amagul ku mu bàyyi toroxal liir kon nag ñun ñaan dañuy ñaan yàlla nee na ku la tooñ nga ñaan ma nangu kon yàlla na yàlla toroxal Macky Sall xaw suturaam weer ko ak képp ku moo àndal bépp mi def yu asak jigéen ñu la Macky Sall diggante ma Bougane Bougane dafa def li moom nit ñi dañu def Macky Sall day gisee Bougane Bougane xam na kuy Macky Macky xam na kuy Bougane bugaan bugaan miin na yoonu pale bi bu dëgg ba dëgg suba ngoon mi ngi ci pale bi day nuuru bugaan day nuuru bu xibdee rek mu wax ji bugaan nag moom Macky Sall da koo xamal ni Sénégal yëpp xam nañ ni maa yow ay tekkatu dil nañ ndax na maa ngi ko xamee ci sa télé bi ba mu ko bëggee tëj da nga yaakaare woon Sénégal yi génneewuñu noonu ñëwuñu gisuñu leen. Net bi TV. dégg si kon léegi bugaan problème de mairie bi. dama la ciy jéem a kale wàññi sa doole mais député yi dama lay kare baare la su ma la baaree nag génnal wax ma lu la neex xas ma saaga ma wax ma lu la neex samay député duñ la faale samay ministre duñ la faale police du la faale kenn du la faale ñu waxtaan ci ba juboo pour maanaam comme Sénégal yëpp xam nañ ne maa ngi yow dil la léegi pour Sénégal yi joxaat la bës génnal nga saaga ma li ma liggéey ak lu ma liggéey lépp sànni ci xeer ndax Sénégal yi su ko defee ma daal di lay nag samp présidentielle bu ma la sampee présidentielle fekk sénégalais am nañ ci yow yaakaar wooteel la nga ñëw sotti noonu maanaam moom bu fi nekkul sax wala bu présenté wu sax moom Macky Sall bugaan na sotti ci fi Macky Sall dëj bugaan ci liggéey ci lii lay fayeeku ci salaire u Macky Sall bugaan gay dañuy seen diifi bugaan gay teg na dil ak Macky Sall dàq Ahmed Aïdara xatal ko ci place am da koo xatal ba Ahmed démissionné Youssou Ndour doomu ndey soxna Ndour Bougane ci lu bon lay dox moo ko Youssou Ndour ñoom ci loolu lañ leen xamee ak ñi ànd ak ñoom ak ñi ànd ak Macky Sall Bougane amoon na ci un jour mu dem fee dem di taal taalu day taal taalu te Bougane doo ko gis mukk fii na ne woon Macky Sall for for na tànk damay tibb tànk mais Bougane saa yu foree tànk tibb tànk policiers yi duñ ko wax dara duñu gaañ ay nitam de ay nitu Pastef la gaañ wala leneen mais gis nga bu yaakaar ne yéen da ngeen a muus da ngeen di torox yéen da ngeen yéen déggu leen ma de yéen amatu leen ñaan ci seen suuf yéen baaxleetu leen ci seen suuf yàlla toroxal na leen yéen ay firaawu yéen ay siyaare ni dajjaal ngi ñëw dajjaal bi ngi yegg si bugaan dafa ñëw ne askan bi la àndal dugg ci mbënd di di di kii di filmé di wax mi ngi naan ci xolam ñaw gisagu leen dara ndax ñun France lañ fi nekkal ndax ñun dañu xaj ci poos jënd ba pare France jënd nañu ñun ndawal France lañu. dañuy maslaa yéen nii rek mais toog leen xaar ñu ngi ñëw ren bi bugaan lii mooy lii mooy lii moom bugaan ngay seen TV moo tax ay journaliste am yëpp ay fenkat lañu journaliste am fenkat lañu bu ko arrangé wu mu dàq la bugaan jeu gën seen bugaan ngay seen TV patriote yëpp nañ ko xam test live bi ñëpp xam ko ci gox goxaan yi yéen waa Europe ñi nga xamante ni région yi xam ngeen ko seen xale yaa nga a dañuy waxtaanee Bougane Youssou Ndour Pape Djibril Fall comme ñoom nee nañ taxaw nañ garantir ak Macron ne ko 2024 ñu ne Macron t'inquiète pas na sa xel dal euh, kale kon noonu ñu ko waxee yal na leen yàlla kale fay leen tëj leen ba dootul leen jóg Bougane Pape Djibril Fall Youssou Ndour ak ñi ni yéen ak yéen ñëpp nag ak Pape Diop su ma limee damay yàgg mais ñoom ñëpp xam naa leen <coughs> ndax ñoom ñëpp saa ma jullee di suba maa ngi leen di ñaanal ndax ni ñu bëggee kale Ousmane Sonko yàlla da leen ko kale ñii ci kawlal mu kale ñii ci lalu mu kale ñii ci biir suuf mu kale leen ñii ci kaso bi mu kale leen parce que nooy koy fexeel na nga ko tam yàlla nee na ku la tooñ boo ñaanee man yàlla ma nangu kon dag ñee tooñ ngeen tooñ ñu ngi ñaan yal na ak tooñ wàcc ni yàlla mbugalee firaaw yal na ko yàlla wàcce mbugal ci gouvernement Macky Sall ba ñoom ñëpp ñoo am yaakaar suñuy ñaan ñoo wéeru ci yàlla bëgg jege yàlla nag fonk ko lool nag te dox ci ay kàddoom tey ñaan ci ay kàddoom yéen nag da ngeen a wéeru ci iblis iblis toroxal leen duy leen mbas leen moo tax lu ngeen def mu senn parce que yàlla ne lu ma santaane nga tegg ko tekk iblis ma toroxal la yaak iblis moo tax lu ngeen teg seen sutura xaweeku saa yu ngeen ñaaroo wooy wala ngeen bendoo ci biir pale ba ngelaw li génn na ko yàlla indi ko suñuy nopp saa yu ngeen nëbbatoo ngelaw li indi na ko ci suñuy nopp kii mooy Bougane Sen TV Sen TV dafa signal Macky Sall accordé na ko dinaa yàqal Ousmane Sonko dinaa wàññi dooleem yaa mën a fen yaa mën a fen yow mi tëddee Adji Sarr xasaw xun nag dax mooy kat bi njaaloo kat bi yow looy liggéey wala nga ñaan ko ba ba ko doo ko am neex parce que ñëpp ay jaamu Macky Sall dañ parce que ñoom ñëpp amee askan bi da beneen bi mooy Youssou Ndour moom dafa taxaw ne Macky euh, Macron dafa déy Macron ndax kontaan ne ko t'inquiète pas tout sauf Ousmane Sonko ni nga ko waxee noonu lañ koy defee Ousmane Sonko dinañ ko kale balaa 2024 incha allah dañu ko réunion waxtaane ko Youssou Ndour moo wax lii. billaahi wallaahi wa rabbul kaaba duma waxantu duma fen samay guddi gu jëkk ci bàmmeel laay xool Youssou Ndour Bougane Pape Djibril Fall Macky Sall lii ñoo ko def ak seen gouvernement ñoom Macky Sall waaye di ngeen xam ne jaam ba pexem yàlla ak dogalam li ma leen di wax chaque jour gëwuma seen stratégie stratégie suñu borom laa gëm gëwuma seen ndogal ndogalu yàlla laa gëm ndax jaam ak pexem yàlla ak dogalam beneen bi mooy Youssou Ndour nee na Macron t'inquiète pas boo tëddee nelawal li nga bëgg dinañ la ko defal tout sauf Ousmane Sonko dinañ kale Ousmane Sonko lu ñu mën di def dinañ ko kale balaa septembre wala septembre ndax nit ñi màggali xale yi màggali ñu fexe takkal ko gaawanti ci dossier yi moo tax consultant bi ñu ko ñu doon def euh, ba ca France di ko jéem a toj pour takkal ko pour yàq dossier pour ne dañ ko waxal ne weng wala euh, <laughs> ñi ñoo yées ay di ngeen xam ne yàlla dina leen toroxal ba ngeen a toj tiimale leen xalu safara loolu moom moo tax moo tax ñuy dem di daj ay consulat beeg France pour bind ci dossier Ousmane Sonko pour maanaam septembre coûte que coûte looloo tax pap pap ngañ ñaanaan septembre dinañ ko jàpp parce que dañ ko sóoraale ak màggal bi xale yu màggal bi ñu gënnaawu xale yi kooke euh, ko Ousmane Sonko am kenn bañ ko topp yéen a nax seen bopp yéen a bopp yéen loolu yëpp ñu sóoraale nañ ko dégg nañ ko bu yàgg loolu lépp sóoraale nañ du ne ngeen da ngeen làq seen baay i frère làq i doom bëgg ne da ngeen tay doomi jàmbur frère u jàmbur baayu jàmbur fen ngeen kàcc ngeen fen ngeen kàcc ngeen parce que yow toroxtaange bi nga ñëw ci yen te su ma leen ko waxee ngeen gëm ko ana Fouta yaay tàpp ma nga tal de ma nga tal yaayam gisatu ko ci réseau bi gis nga koy fexeel na nga ko tal koy fexeel na nga ko tal yéen du ngeen tala ci Ousmane Sonko suuf du ne ngeen da ngeen napp ne du ngeen bàyyi France jalal leen jaay seen bakkan France jalal leen ngeen tëdd ci lal paralysé di torox di tàq France jalal leen ngeen kaso bàmmeel ci dem ñun duñ leen yóbbu ci fétis duñ leen yóbbu fenn ñun yàlla nañuy ñaan te incha allah di ngeen xam ne ñaan dafa am. te yéen war ngeen xam ne ñaan dafa am boobu ba tey Macky Sall mi ngi ci tooxi doon di torox mi ngi torox mënatu la nelaw guddi mënatu la nelaw parce que lu mu teg yàlla laale ko ana troisième mandat bi yàlla dina leen toroxal bu baax te plus ñu ngi gën a dem plus ñaan yi dina nangu dina dugg seen dara jaxasoo seen dara doon ay poson seen biir yéen gisagu leen dara du ne ngeen du ngeen bàyyi Ousmane Sonko du ne ngeen du ngeen bàyyi Ousmane Sonko dinañ leen yàlla dina leen toroxal ba ngeen a toj te yàlla na mbugalu suñu borom wàcc seen kaw maa ngi su jot di ñaan di jàng alxuraan di ñaan di lottu di tudd yàlla di ñaan di lottu di jàng alxuraan di borom di ñaan te sama ñaan yii wallahi incha allah yàlla di ko neenal ak ñaan yu na ni ñun ak wàllu yi nga xamante ne ñu ngi ci ñoo ma ñoo ma raw fuuf nekk ci roq di ñaan Ousmane Sonko te Ousmane Sonko xamuñu ko xamul leen du ne ngeen du ngeen bàyyi Ousmane Sonko seen bopp dagg seen bopp rendi seen bopp jël seen deret naan ko incha allah du ne leen indi leen ñu direct yéen di ngeen dagg seen bopp jël seen deret joxe ko yéen incha allah Youssou Ndour jaalookat bu mag ba ñu fekkoon si kër góor gi te mu joxoon corom ne ko parce que corom sama yoon nekku ci li may wax chaque chaque jour du wax viwu jàmbur mais dinaa wax li indi loo xamante ni pour askan bi la ndax yaayu askan bi la te genn góor a gudd loo ca laal loolu bi Youssou Ndour dafa laaj ci sama njaboot tax dinaa ko wax bu ko laalu woon sama njaboot waxuma ci Youssou Ndour ma nga mooy moo te nekkoon ci cité kër góor gi di fa ba jabaram fekk ko fa tamu joxoon gelam ne ko yokkal sa ans yokk sa wen ndax looloo may daaneel xam ngeen Youssou Ndour mooy kii tëgg tëgg bés si te mbaacoo doon yëg ci tur bi jabar ji ne ko doo yëg ndax xam na ni njaalookat la jëkkër ji njaalookat la Youssou Ndour du jëkkër gu ñuy tiitaroo ndax jëkkëru njaalookat la day fabriqué njaaloo di organiser njaaloo di tëgg njaaloo di boole ay njaalookat kon kooku nit ku bon la man xaw ma ko jigéen di toppee waykat yi làmbkat yi boycotté leen di ñu def li yàlla gërëm askan bi di leen may xaalis ñu bëgg toroxal askan bi amul kenn ku ci taxaw di kaasal askan bi Youssou Ndour nee na Macron t'inquiète pas moo indi kottante boobu ak Macron di reetaan mu ne ko t'inquiète pas li nga bëgg dañ lay defal tout sauf Ousmane Sonko dinañ baare Ousmane Sonko Youssou Ndour yal yàlla baare kale la balaa 2024 toroxal la ba nga a toj ak ñëpp teg ci seen bët yal na leen yàlla fay wàcce bëggal seen kaw ak feebar yu dul jeex ana Mamour Diallo ma nga jalis de ak ñeneen ak ñeneen xam nañ ñi feebar ñëpp dañ ne patt di xaar Pape Djibril Fall Macky Sall dane ko léegi comme am nga benn député parce que Pape Djibril Fall dañ ko tegoon ne ko wàññil doole Sonko yàlla ne ko dinaa la toroxal yow comme xaj mu toroxal ko xam comme xaj muy mbow comme xaj moo tax ñi mu ànd ñu woon nañ ko ginnaaw toroxu xaj lañ ko def moom toroxu xaj day wëw rek léegi moo tax Macky Sall ne ko léegi dangay dem boo demee bul ñëwagum ci man député nga bul ñëwagum ci man ndax ñi lay séntu ci man da ngay dem di wax nànk-nànk say discours pour askan bi ñeme la waat pour askan bi xëccoo nga amaat bës présidentiel ma samp la yéen ñëpp ngeen sotti ma waaw <laughs> waaw tugul la yal nañu yàlla musal ci jëfinu mbaam ne ko yal nañu yàlla musal ci jëfan jëfinu mala nit ki moom boo lekkee lekku mbaam tifinu mbala rek ngay lekk yow nag Farba Ngom Farba Ngom nag moom ngi jël ay maletu xaalisam di wër di jënd député yi di leen gëmloo ni Ousmane Sonko du présenté wu ñëw leen Farba Ngom yow li nga doon wàccoo ko ci nga juddu yaroo ndax dañ daan jaay say maam jënd la yow moo tax nga def ni nit ñi dañoo am njëg moo tax nit ñi la jëndee comme xar jënd la comme jurtu xaj moo tax nga yaakaar ni ñëpp ay xar nañu nga yor sa xaalis député yi maa ngi leen di xamal benn affaire amul lu ñu koy rusee kenn askan bi ñoo liggéey jox leen bés bu ngeen ko jaayee dinañ leen toroxal te bés bu ngeen ko jaayee wallaahi di ngeen rëccu lu ci kaw suuf te di ngeen rëccu lu tax doon doon député muy leer àndal na nag seen ngor yoonu kenn du ko waaru wërsëgu àdduna bul la ku sa numéro génn nga nga jël te war ngeen ko gëm na xalaatu leen woon di ngeen nekk député kon ba ko yàlla tuddee doon ngeen ko Guy Marius Sagna di muñ xeex ko ba doon député mérito ko taxaw ne askan bi man du ma député seen mindaan laa kon kooku roy leen ci kooku roy leen ci Guy Marius Sagna askan bi ku ku ci jaay sa député dootoo ko defati ndax pare nañ pour tay na suñu parce que duñu nekk ci naaj ba nekk ci réseaux sociaux yi nekk ci terrain bi di leen xeexal jël député ni leen am xeexal ko Ousmane Sonko di xeex ci taw bi di xeex ci taw bi ba jël député yi ne leen am ngeen ne da ngeen koy jaay ku ko ci jaay bu soobee yàlla xaalis ba doo ko lekk dina doon poson sa kaw dina doon poson sa kaw te ni ko tëdd la ko parce que nag trop c'est trop de li amoon wóor de na déedéet yàlla nee na bu ngeen jógee ma doole seen kaw. ku jaay suñu député ñu toroxal la jóg sa kaw nekk nga nekk am fay dootoo tekkeeti dara sa doon du tekkeeti dara ci mi parce que buumu jàmm bi dafay jeex Macron Macky Sall Sarkozy Tony Blair eh, Emmanuel Macron fils Antoine Abdoulaye Diop maître ndax kooku lu Philippe Antoine Wade dugg moo ñoo yor réew léegi di wax di ji général Moussa Fall Mamour Salé Serigne Bassirou Laye bu bees bii bépp ñu def la sàcc di nga jula ànd ak Macky Sall mi muy Touré Mamour Diallo kii Diallo Mamour Maodo Malick Mbaye Papa Sidi Ahmad Moustapha Diakhaté Gaston Mbengue Xaarim Samb fàttewu ma leen yéen ñëpp si seen liste laa di leen ñaanal de bu soobee yàlla kenn du tal Ousmane Sonko ñii suuf ñii ci kaso ñii ci rëbës bu leen fàtte nag te bu leen weddi waaye bu leen bu leen bu leen bu leen bu leen ko gëm ngeen ma ngeen doon doon fàtte Abi Rabi Sarr Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi Fatoumata Ndiaye Fouta yéen ñëpp Macky Macky trois pommes pour a Macky yéen ñëpp de Aïssatou Diop Fall Aliou Sow Walfadjri groupe Sen TV groupe TFM François Hélène Tey Khalifa yéen ñëpp de mënumaa lim lépp waaye yàlla dina leen dugal un à un te Sénégal yéen a ngi fi maa ngi fi toog leen di seetaan toog leen di seetaan bu ngeen ko bu ngeen ko waree gëm te bañ koo fàtte ana ñu doon fexal Ousmane Sonko ñëpp ana Bamba Fall mi doon wax doo ñëw Medina ana Fouta Fouta Ndiaye tànk mi doon doo ñëw Fouta allahu akbar allahu akbar yan nañu yàlla dégg ci ñaan yan yàlla nangu ñaan yi Pape Djibril Fall dañ ne ko demal nga toog fee écarté wu ndax sénégalais yi ñu fexe di xàccoo ci yow yaakaar naan la ñëwal ñëwal bu ko defee nag présidentiel ma samp la Pape Djibril Fall na mel ni ginnaaw kër ko kenn faale bu ñëwee moo xam bu ñëwul moo xam bu ko kenn faale bu ko kenn faale nekk na am fayit ba pare yàlla weddi na ko lay euh, sonko bu ko xale songee mag ma koy tër kenn gisu ko songum gay na sonko daanu daanu muus Cheikh Tidiane Gadio Cheikh Tidiane Gadio ah Bara Sankara wallaay euh, yéen gisagu leen dara da ngeen di door yàlla dina leen toroxal bugal bu bu raw bu faaw nii Macky Sall def Dantec bii. Adama Faye Mansour Faye Samsidine Faye Marème Faye Sall Amadou Sall doomu doomu Macky Sall ak Marème Faye Sall di yaataa yumbe ci suñu alal njabootu Marème Faye Sall njabootu dina leen arak yéen. li ngeen fitnaan Sénégal yal na fitna wàcc sen kaw yal na yàlla foqati seen nguur tas seen ensemble tas seen nguur toroxal leen ba ngeen a toj mbugal seen kaw te dina am Ousmane Sonko mi ngeen di jéem a baare 2024 du ngeen ko taal ci kaw suuf lu ne ngeen tout sauf Ousmane waaye yàlla ne yàlla ne yéen ñëpp laay mbugal teg fa Ousmane Sonko yéen ñëpp laay mbugal teg Ousmane Sonko ci palais Bougane sa dil yàqu na Bougane Bougane sa dil yàqu na Macky Sall daa teg pour nga koy saaga di ko xas pour askan bi bëgg la topp la mu teg la présidentielle nga sottul ko ñi mel ni yéen am na ñeneen nag ñu ma xam waaye du ma wax ñooñu yàllaa leen di weer dinañ feeñ ñooñu seen wax jotagul yàllaa leen weer incha allah dinañ feeñ ñooñu dañ leen ñaanal rek na pàcc seetaan di leen ñu ngi ñëw weeru ñu ngi ñëw torox képp ku dégg Ousmane Sonko di war di war ak ñeneen nekkoon ak moom écarté wu toog leen di seetaan ñi ngay suñ ñu ngi ñëpp ñu ngi ñaan dee leen wax amin rek yéen di ngeen gis di ngeen gis incha sama gars nga ñiy rey ay fitis ak nag dañoo jaxle dañoo joobi fitis alxuraan moo ko mën dama ne daa rey alxuraan nañu yee xale yi quatre heures du matin nañu bari ñuy jàng baqara ayatul kursi naan Macky Sall ak fitisam ak képp koy fitis senegal yan na yàlla wàccee mbugal ci sa kaw képp koy fitnaa Sénégal ci fitis yan na yàlla wàccee mbugal ci kaw ñi ngay rey ndeen nag yi yan na doon sa deret ñun tooñuñu kenn bañuñu ñu ñaanuñu kenn lu bon waaye yàlla moo ne ku leen tooñ ñaan leen leen ma nangu ñaan ndax bu ngeen xoolee képp ku ñu tooñ ñaanal nañu la de président Mali ñaanal nañu ko de président Burkina Faso ñaanaluñ ko de parce que yéene wuñu li Macky Sall yéene ana Assimi Goïta yàlla mi ko sàmm ba Mali am fulla am fayda moom seen bopp maa ne nañ leen moom suñu bopp bés buñ ne Ousmane Sonko du bokk wala dañuy yëkkati projet euh, abira bi sax naan septembre dama ni ku màggal yi na ñëw ñu màggal gi yoor yor la gaaw ñëw gis nga ñii yëkkati nañ Ousmane Sonko wala convocation na seen nguur tas na nguur gi tas ne Macky Sall dugg pale bi di wër ay daalam fu mu nekk te doo xam fu muy génne sama gars yi yàlla ànd nañu ñun teg nañu ñun loxo kon donc lii mooy live bi na ngeen ko tas fépp nag tiktok fépp surtout bugaan bi na ngeen ko nag tas ko dafa xam ne bugaan hypocrite la fenkat la naa fekk la moom bugaan ak Youssou Ndour parce que du ñu fay tax amel askan bi xaalis ñu ne dañuy ànd ak euh, Macky Sall di xeex Ousmane Sonko di xeex askan askan bi li ñuy ñaan mooy yal na yàlla rof doole askan bi ñëpp jógandoo wuti Paris balaa 2024 incha allah du nee ñoom tout sauf amaana balaa 2024 ñoom dootuñu fi nekk bu soobee yàlla day xam ni yéen a nekk la borom a cay fanaan waaye yéen a kër la borom a ca dëkk dama ni gëm leen yàlla yàlla ma sàmm sëñ Touba tubaab bi jël ko yóbbu Ousmane Sonko tubaab bi jëluñu ko yóbbu mais sëñ Touba tubaab bi dañ ko jëloon yóbbu te dañ ko indiwaat mais yàlla boobu yàlla mi sàmm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca kuntu ba ba noonu yi mënuñ ci yom dara yàlla boobu mi ngi fi buñ ko ñaanee am yàlla mi sàmm yonente yàlla yi sàmmee ko Macky kii sàmmee ko kii yonente yàlla Moussa boobu mi ngi fi yàlla boobu sàmm ñooñu mooy sàmm Ousmane Sonko yàlla ko yàlla yokk sàmm garanté ko ni mu garanté Kaaba mais Makka ay ay ñaan a ko téye Makka ay ñaan a ko téye kon ñaan yooyu ñuy ñaan mi ngi fi jàng nañ ko mën nañ ko mokkal nañ ko te da koy nangu ni yàlla garanté li yàlla garanté Kaaba ga yàlla na ko yàlla garanté Ousmane Seydina Ousmane Sonko ba 2024 kii yaa mën a ko lu mu ko jox ko nguur gi te bu leen fàttali Seydina Mouhamed gën di mu ay noonu topp ko mu gàddaay dem dem te moo gën Ousmane Sonko gën ndayam gën baayam kon lu tax yéen mënu leen am gëm-gëm lépp lu ñuy fexal Ousmane Sonko ña koy fexal day këpp seen leen bu leen fàtte Seydina Mouhamed sal salam ba mu demee ci xuntu ba dañ ko koo waxoon dégg ay waxu noonam mais Ousmane Sonko noonu la ñuy déggee ay wax loolu moo tax Mollah Morgun li muy wax yëpp te gën a dégg mais li mu wax toj na lépp lu wax bu ñu moo tax bu gën dégg li Mollah Morgun di wax di tiit ku leen tiit loolu mu koy waxee noonu la tojee ndax dëgg lay wax fa ñu ko réunion we yàllaa ñu baaxee ku ko koy wax mu ñu koy wax ñuy xam di ñaan keneen di xam di ñaan ak ñi ñuy wax ci suuf tamit ñuy ñaan kon bu leen tiit bu leen ragal patriote yi delloo leen seen xel ci yàlla te ngeen gën a force force ànd ak seen doole li ñuy xaar mooy Macky Sall ça dépend ci moom na laal Ousmane Sonko wala mu convoqué ko dootu ko dolli ñoom ñu sunu ñoom ñëpp dootuñu ko bu soobee yàlla bi yoon moom euh, bu soobee ñu nangu ñaan te xam yàlla dafay nangu ñaan ndax yàlla mi ne ñaan leen ñu may leen ni muy nangoo ñaan di ñu ko jox ne nangu naa ko kon nañ leen nangoo noonu ñaan ñu ñaan ci allahuma bi ndax ñaan mooy gànnaayu jullit allahuma rabbi allahuma rabbi allahuma rabbi su jëlawal iqra bi samawati wal ardi yaa xayu yaa xayu yaa xayu yaa xayu yaa xayu yaa yaa sama di yaa sa buur yaa latif yaa salaamun Macky Sall doomu Kumba Tiwaawan Sall yal na ko yàlla mu toroxalee waa Dantec jooyloo leen jooy yooyu yal na rangoñu ndox mu tàng ci moom ni mu toroxalee waa Dantec balaa semaine yal na yàlla toroxal Macky Sall bëggal ko François Macky bi ci biir ko torturé mettital ko te mu tooñ ko te yàlla ne ku tooñ ma la yal na doomu bi ñoo bi ak fukk xale ñeent yi Macky Sall rayu ak lii ñu sax nag yal na leen yàlla toroxal Macky Sall yal na yàlla dog sa nguur xañ la sa nguur ni nga dogee Dantec euh, Dantec bee ñàkkal leen kees sa génnee leen yal na la yàlla génne ci sa pale bi toroxal la dog sa nguur dog sa ensemble tas sa yaakaar sa ensemble nañay ba géntal euh, gàntale woon Abraha yal na ko yàlla gàntal Macky Sall toroxal ak ay nitam ñëpp yal na leen yàlla toroxal yal na armée bi gàntal Macky Sall ñëpp gàntal Macky Sall yal na ko yàlla toroxal ci sallallahu ala Muhammad ci laa ilaaha illa anta Ousmane Sonko di yàlla sama yonent yàlla Moussa ci nguur Firaw ne ko yàlla sama seen Ousmane Sonko ci Allahumma rabbi Ousmane Sonko di yàlla garanté ko yàlla garanté li ko sore say eh, ak ndoxu glace Ousmane Sonko yàlla boo jàq boo jàqle yal na yàlla la aar la wéttali la yàlla nga jubóo sa borom loo ko may la nga commencé ci eh, Ziguinchor yàlla nga ko yeggali ci alhamdulilah rabbil alamin wërsëg beeg am am gi yaatu na géej wàcc ni taw taw tànk du tax mu jeex yàlla yàlla yokk sa xam-xam yokk sa leer may la wér ak kattan fekk ak dal gu sax mu sëgu képp ku lay jéem a pàdd yàlla nga da yàlla na daanu képp ku lay seet di wër yàlla yàlla gumbaal ay bëtam ba képp kuy dox di la seet yàlla na yàlla lafa lafa ñal ay tànk yi muy raam toog ba dootul yàlla am na ko mën na ko yàlla ko yàlla def Ousmane Sonko yàlla yàlla sàmm la aar la yombalal sa nguur ba mu yomb ni nguur yonte yàlla Souleymane yàlla yàlla euh, taxaw la ni mu taxawee Seydina Moussa ca kuntu ba dafa wetti yàlla Moussa ci nguuru Firawna yàlla am na ko mën na ko yal na ko yàlla def ci sallallahu ala Muhammad ci sallallahu ala Muhammad sa fekkee say bàjjan ak say fam ñëpp fekkee ak diaspora bi immigré yi Sénégal askanu Sénégal ñëpp fekkee na ko yàlla nañu daanu na nekk en fayt képp ku mu àndal na ko patriote yi maa ngi leen di ziar yal na yàlla far gudd fan kattan fekk tal tas leen live bi dafa am solo ndax day toroxal Bougane di toroxal Macky Sall di toroxal Youssou Ndour ak ni ñoo ak ne ànd ñoom képp ku ànd ak euh, Macky Sall képp kuy votal Macky Sall yal na la yàlla xañ jàmm yàlla boo am jàmm yàlla bu sa aajo parce que mënuma gëm kuy toroxal askanu Sénégal di dooleel góor jigéen di yàq diine yàlla ji di dem fa France di saaga Seydina Muhammad nga ne yow jullit nga yaa koy sànni carte yi sànni carte boobu yàlla na ko yàlla laaj yomal xiyam yàlla na ko yàlla mugale ci kaw suuf képp ko ànd ak Macky Sall yàlla ba sa aajo faju yàlla la yàlla toroxal fitna gi Sénégal di daal yàlla na ko yàlla sotti ci barke leer ak kabar bu sama gars yàlla nañu suturaal ñun ñi bëgg Sénégal baax di defar Sénégal ànd ceeg Ousmane Sonko yal na yàlla jàmmal ñu may ñu wér gudd fan fekkee tal suturaak soog euh, wér te dooleel ñu yàlla am na ko mën na ko yàlla ko def diaspora bi immigré yi yàlla ngeen ñëwee bànneex ñëwee nanka nank ñëw fii gun nga Ousmane Sonko pale 2024 ci yaamale mu yaamale ko mun ko muy borom buur yal na ko yàlla def ci sallallahu ala Muhammad salaamaaleykum wa rahmatullah kontaan naa macha allah patriotique si